Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, honorables députés, chers collègues, Monsieur le Président, nous sommes au Parlement. Vous êtes le chef du Parlement. Sénégal ñetti pouvoir la pouvoir exécutif incarné par le chef de l'État, élu au suffrage universel direct. Le pouvoir législatif, élu au suffrage universel direct. Le pouvoir judiciaire constitué par les cours et tribunaux et ñi fa nekk ñu nommé leen par décret. Monsieur le Président, il y a eu des accusations très graves portées sur des membres du Conseil constitutionnel. Moi qui suis député élu par le peuple sénégalais aussi grave et gravissime portée sur des gens yu ñu tuddee les sept sages jàpp ko war a leeral moi je ne peux pas admettre moi Bara député du peuple député du département de Keur Massar je ne peux pas admettre mais collègues honorables députés ñu mën leen a jàpp summi seen mbalaanu kiir kiirlaay tëj leen ci biir kaso wala ñu jàpp leen tëj leen ci biir kaso ëllëg si biir ñu mën a topp un président de la république en cas de haute trahison te ñi nga xamante ni ñu ngi tëjee buñ leen waxalee ni ñoo def njombe kenn du leen wax dara je suis pour que lii nga xamante ni mooy la. ñu teg ci table ji maintenant. il reviendra au Parti démocratique sénégalais qui a porté ces accusations ñu indi li nga xamante ni moom mooy les preuves teg ko ci kaw taabal su fekkente ni li ñu wax dëgg la li nga xamante ni mooy yet wi dal ci ñi mu war a dal su fekkente ni du dëgg yet wi am na feneen fi mu war a dal mooy ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo indi ces accusations mais pour autant je voudrais dire que je ne suis pas militant d'un report de l'élection présidentielle il n'est même pas possible de reporter l'élection présidentielle élection présidentielle boo xamante ni ginnaaw suba lay ibbi donc jàpp naa ne ñun li ñu war en tant que député mooy ñu d'accord ci li nga xamante ni mooy cette commission d'enquête parlementaire comme nañu d'accordé woon ñun groupe Yewwi Askan Wi ba ñuy proposer li nga xamante ni mooy la mise en place de plusieurs commissions d'enquête parlementaire pour enquêter ci ay mbir et loolu bureau mais rares sont les fois ñu indi li nga xamante ni moom mooy les demande de mise en place de résolution pour la mise en place de commission d'enquête parlementaire ci bureau bi tey lii ñu defee nii fast track on est d'accord démb ñu indi woon dama koy voté tey indi nañu demande de mise en place de commission d'enquête parlementaire dama koy voté mais pour autant élection yi à ce stade ñu wax ni samedi lay commencé jàpp naa ni report mënatuloo am mais jàpp naa ni président de la république dafay un mois et quelque incha allah fi six mois et ironie du sort d'enquête parlementaire boobu dafay dure six mois donc jàpp naa ni la responsabilité de tout un député aujourd'hui afin que la lumière soit faite parce que ñu dugal ñu ci kaso bi tey bu fekkente ni dañu leen jiiñ loo xamante ni tey dafa grave ñun am nañu droit élucider ko leeral ko bu baax a baax